ah wala mi ngi non kon liñ leen won ni fi ñuy dox ni moy canal bi nga xamantene mom mo moo hôpital Abbas Ndaw di dem vers la Rissis 6 nak medina ngi ni ni la mel wala ni ngi ni ni ngi ni tay ji ah wala ni ngi ni ci lan nga nek nonu ci lan ngay def nonu rigole bi ngay jéem pour ndox mi mën a jàll léegi bagage yi lu mu doon ni ay balu fëgg jaay kon marché mercredi bi amoon fii seen bagage yi moom moom moo mel nii ok aha ba yéeg yëpp moo nekk nii ok

mi ni nii la mel tey voilà partout voilà bu ñuy wax nag priorité dans un pays les moo tax ñu naan priorité dans un pays loo xamante ne askan wi yëpp dañ ciy mën a gis seen parce que Medina, munta nekk à deux pas de la mer de Soumbédioune muy Indone kon les canal bii ñu def ni. ni léegi canal bi kon mom lan lay jëriñ kon Manam, évacuation lañu wax bu ñuy def canal Hugo yi amul benn bo xamantene rek ni mi ngi jallal ndox ki ngeen gis ni moo dem ubbi ci bopam di jël li mu yor ni di di di fexé à ce que Hugo yi di mën di jàllale ndox mi lolu mënul nek c'est impossible voilà lolu mo fi xew tay mi ngi nii loolu nag moo fi xew mi ngi c'est ça lii yëpp ay des la les commerçants ne commerçant yi ñoo ko moom yi malheureusement voilà